dama bëgg gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon nag di campagne wax dëgg yàlla membre délégation bi responsable politique yi ci bokkoon ma ànd ak ñoom wër réew mi bokk na si ñi doon dawal chauffeur yi ak sécurité bi ne chauffeur nag dinaa tudd Biglèche ndax moom yàgg na ma dawalal waaye ak sécurité bi yëpp mais remercier aussi population yi ak responsable yi nga xam ne ñoo ñu teew te ñu ci bëri ma bokk ak ñoom tey assemblée nationale doonoon na nag lu metti xëy na di ngeen gis photo yi ñuy siiñ ak yu ni mel euh, waaye nag lu mettee metti la woon ci juróom benni fan ah ci naaju nawet kuy baykat xam nga ne naaj tàng la ci taw ak ci xiif voilà bëccëg yi gudd lool guddi yi gàtt lool waaye alhamdulilah rabbil alamina bu ñu la joxee mission da nga ciy def sa kemtulaayu kàttan def ci sa jom bu mettee it nga siñ rek muñ yenn saa yi siñ bi gàññ lay doon sax waaye nga fexe rek ba def ci sa jom ba am ndam yéen nag yi en dix ans naa li ma toog ak yéen jàkkaarloo mii bari na lool defe naa waaye defe naa ne mosu leen ma dégg ma wax sama diggante ak président Macky Sall waaye nag day toll jamono joo xam ne leeral dafay am solo président Macky Sall nag ma wax leen man la ma ko wax yëpp du ma ci dindi dara ci wàllu bilan ndax dama cee teg sama bët man da kuy ku du ma kuy wax ëlbateku wax leneen waaye nag foog ma wax leen li nga xam ne moo jot a xew li ma leen bëgg a wax mooy dama naa ne Sidi Bara wax na ko yàgg naa ci politique ba may am 32 ans de candidat présidentiel boo xam ne troisième la jël ci élection boobu la ma ràññee confié ma directoire de campagne boobu fanweeri at la am ak ñaar kon bu ma ñëwee ba toll fii ba am sël kon maa ngi bëgg a yàgg ci politique doon ci nag aussi responsable bu am expérience kon bu may toog di waxtaan ak président de la république président Benno Bokk Yaakaar mu jox ma parrainage parrainage boobu nag ma sant ci aussi ñu mel ni équipe bu ñoom Pape Mayel Thiam toog nañ ca seen permanence boobu presque ba trois heures quatre heures du matin pendant plus de deux mois responsable bu ñëwul seet si ma foofu ma def loolu ëlbatiku wër Sénégal booba dafa fekk ma waxtaan ak président Macky Sall am accord moom sur la présidence de l'Assemblée nationale. dafa war dafa war dafa war dafa war. néew ma ma ci apprenti te ku ci am fulla laa ne wan kenn du ma toog ba dernier moment nga naan indil sa këyit loolu amul li am li am mooy dañoo discuter li ñu waroon a discuter ñu am un accord ferme sur la présidence de l'Assemblée nationale noonu la ma ko amee de parce que ba mu may nommé conseil économique social et environnemental waxtaan nañ ci ba tënk ko deux mois donc président Macky Sall xam na ne ni may wax dëgg la xam na ne loolu moo am. moom waxul dëgg. loolu moo am. s'il vous plaît. s'il vous plaît tey duñu sax ay alxuraan yu bëri waaye ku tegoon fii kàddu ñu teg ci suñu parce que loolu moo li am nag mooy le 12 septembre bi ñuy bi ñuy installer le bureau de l'Assemblée nationale. neuf heures vingt six ci suba ci la ma woo yónnee ma message ne ma ndax ma woo la ma ne ko waaw mu ne ma ma daal seet naa ko ba seet consultation naa waaye damay changer avis diw lay def président de l'Assemblée nationale quinze minutes avant ñi mu yónni ñëw pour jox information yi député yi loolu mooy li am leneen amul heureusement d'ailleurs ma sant yàlla ne candidat boobu politique nag ku fi nekk yow nga sàmm sa xol bi loolu doo doxalee noonu ak sa responsable doo doxalee noonu ak sa jigéen doo doxalee noonu ak sa am di jàmm loolu mooy li xam ne bëggoon naa ko wax ndax moom ci boppam xam na ne fukki at muñ naa ko mu ciy am ay injustice yoo xam ne yii ah ñëpp fekkee nañ ba muñ may jógee primature lu ñu ma wax noo gagné woo Grand kon da ngaa war a def waaye def naa ne premier ministre am bii maa ngi koy ñaanal góob ma ne gagné na Parcelles Assainies góob ma ne gagné na bureau de wala góob ma ne gagné na Dakar waaye à chaque fois Mimi moom cas spécial lay doon. waaye ñu muñ ko rek ndax li la tax a jóg ak li taxoon ñu jàppale ko mooy Sénégal mu lu mu ci liggéey nag loolu moom bu ko ko mos a dégg waaye yu metti lay doon ndax xol du ay lu metti lay doon waaye bu la sa dëkk taxee jóg nga jàpp ne war ngaa indi sa contribution ndax nag koy seet New York moo gën a amee moo gën a bakkane moo ëpp tawféex journaliste yi duñ fa nekk di la mel à la une ak yu mel noonu waaye loolu yëpp dañ koy muñ daal di ne suma réew dama war a ñëw indi ci suma expérience may woo nag sax cadre yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu continuer ko def waaye nag na seen xol yi dëgër bu baax a baax kon la xewoon yëpp injustice yooyu yàgg naa am ba may jógee conseil économique et social fekkee ngeen ko kama <laughs> wutu moom jarul ma ndax dama jàppoon ne comme ancien premier amee tolof ak président ba nga xam ne mooy sama président de parti man mi am niveau premier ministre man maa ko war a aw maa ko war a tontu waaye noonu yi ku téléphone moom man koy bëgg a min ma woo ma waaw man daal defe naa ne xool naa ko xool waaye dama koy indi nga jóg moom mu toog waa am ñu naan sax waaw yow yooyu yëpp yow est-ce que amuloo di tubaab naan naïveté ma ne leen noonu du naïveté ndax nit ki boo jëlee choix luñ naan choix de vie maanaam nga jàpp ne man daal nii laa bëgg a dundee nii laa bëgg a indee contribution bi suma dina yooyu bu ñëwee danga nga koy muñ da nga koy encaisser ndax Sénégal ngay teg ci kanam ndax nag alhamdulilahi rabil alamina bu la yàlla ubbilee wërsëg it war ngaa jàpp ne ci sa woowu ak ci xam-xam ba ak ci expérience bi war nga koo delloo réew ci jàppale ci nga xam ne mooy liggéey te Sénégalais yi teg ko fi te loolu it awma ci benn lu may regretté kooku it bëgg naa ñu xam ko bu ko defee ñu xam bu baax ne ne lu metti lay doon da ngay say xarit say am ni jàmm say mbokk say àndandoo ndax xëy na yow la nga cay mën a mun ñoom du ñu ko ca mën a mun te dara taxul nag souffrance boobu ñu koy am ci lu dul rek doon sa soppe sa ànd say àndandoo ak yunimat maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ah, di sant ci jàppale bi moo wax it ne ci am naa fi ay proposition pour liggéey bitim réew yu dul jeex te président Macky Sall wax naa ko ba tey offrir nañ ma ay poste Nations Unies yu kawe ba ca mujj un mois avant élection législative danañ ko jottali waxtaan wi moom xam na ne wax naa ko ko ne ko nag man li may jàpp ak li may choisir mooy jàppale la mu ne ma vous avez fait le bon choix un mois avant les élections législatives te jàpp naa it fait le bon choix ndax toog naa sama réew continuer di ko liggéeyal li ma bëgg nag euh, mesdames messieurs les journalistes ngeen comprendre mooy waxtaan wi du affaire wu poste du affaire wu privilège maanaam tawféex bu doon loolu rek kon du ma toog fii di waxtaan ak yéen ndax ca diggante ba nag moom ci boppam yónnee na ma ndaw yu dul jeex def ma ay proposition yoo xam ne lu ma fii bu doon tawféex rek ak privilège ak poste kon ma jël privilège yeeg poste yooyu ndax poste sax moom boo koy tudd ma fàttali ne man fonctionnaire international la woon ni ko Sidi Bara fàttali sànq nekk New York jiite fa ak département di jëflante ak ministre yi nga xam ne ñoo ne ci àddina bi yépp ak kilifa yi waaye man maa jël contact ak président Macky Sall xool profil yi ne kii kat defe naa ne war naa mën a yor Sénégal ànd ak moom booba defe naa ne amul fonction géologue la waaye fonction moom boo xam ne bii amoon na ko amu ko woon donc amuloon lu mu joxe donc ànduñu woon ak moom ndaxi post defe naa ne euh, loolu euh, lu leer ndax amutoon post bu mu joxe ma àndoon ci nag ak ñeneen ndeysaan ma sama xel dem ci Alioune Badara Cissé li nga xam ne jóge na fi il y un an di ñaan yàlla xaare ko àjjana ku bëgg réewam la woon ku am taxawaay la woon moom it waaye sama xel dem aussi ci junniy junniy junniy militant wu APR yi ak responsable yi nga xam ne 2012 dañ jógoon taxawu waaye tey ñu ngi naan waa ñun kon sunu engagement boobu pour lan la woon ndax li ci ëpp dañu jël ñi nga xam ne ñoom lañ doon xeexal teg leen ci seen kaw ñu leen di romb yor seen i teraanga bàyyi leen man dama jàpp ne jot na ñu dugal ci li naan ay valeur ak ñu dugal ci éthique man dama jàpp ne politique du rek njuuj njaaj wax la génn ci du ma jiital suma mbokk bàyyi ki nga xam ne moo mérité du habit de confiance dama jàpp ne nag dañ cee war a boole aussi des valeurs sàmm kaddu yi ak respecter suñu constitution ak suñu loi loolu nag moo may may ma jàll ci li nga xam ne mooy Ali Kalaj wala nee lu yëngu na ko yëngalal ko ko yëngal nag du dara lu dul le mandat bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal troisième mandat boo xam ne dama ne c'est un mandat impossible impossible juridiquement et impossible moralement man day bu ma jëloon tere te yàlla musal na ma ci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 loolu nag mooy wax ji loolu laa joteeg président Macky Sall. xam ngeen ne ci troisième mandat bi yéen ñëpp fekkee ngeen ko référendum 2016 maa ngi fàttaliku maa ngi ko dox ak suma mbokk Kaola euh, euh, Grand Yoff yi ku ne ñu dugg fa ba sénégalais yi nangu constitution bi defe naa à 63 pour cent.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 mi nga xam ne moom ci boppam moo ko changé bu ko defee mu doon un exemple pour l'ensemble de l'Afrique mu dal ni am obligation de respecter la constitution à na amul benn interprétation bu ñu mën indi président Macky Sall dafa war a aussi respecter kàddoom ndax mu ngi ci internet bi yépp dafa war respecter aussi peuple sénégalais bi nga xam ne vraiment jox nañu ko lépp waru leen a mere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 élection législative xat na waaye gañe na kon sénégalais yi wàccoon nañu ak moom jarul mu leen di mere jarul mu leen di tomb waaye nag li nga xam ne moo warul a nekk te président Buhari wax ko ma d'accord ci bu ngeen demee ci internet bi léegi wax na ko ci semaine bi ñu génn assemblée générale des nations unies président Macky Sall ma nga fa war mu def mise en garde chef d'état yi nga xam ne dañu bëgg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 xam naa ne moom ña ngay pare li ma tuddee le S2 SCS2I mooy le comité spécial d'insulte et d'invective am na ay nee nañ ay faucon lañ xam naa ne dinañu déchaîné wu mais jarut ñuy sonn parce que loolu mënuñoo xoqatal mënul wàññi dara ci suñu engagement dara way way way ko nangu fukki weer ak juróom quinze mois exactement président Macky Sall dina dem loolu la yàlla lépp lépp léppay jeex àddina àddina léppay jeex àddina léppay jeex ñu ànd ak moom ak i compagnon xëy na ak soutien psychologique nécessaire bi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 boo ko defee liggéey bi nga xam ne nag jot na koo liggéey waaw ki nga xam ne Sénégal yi tànnal nañ ko seen bopp librement ñoom ñu continuer liggéey boobu am na seen benn collègue yenn des journalistes koy wax sama fay sourire daf ma ne saa yu may musóoru taxaw ci classe bi xam naa sama xel a ngi ci deux mille vingt quatre <laughs> waaw wax na dëgg kay

kilifa aada yi bien sûr ak diaspora bi wuti seen soutien danaa dellu si waat rek seen kanam jox leen toutes les précisions parce que nag fii ñaaree jox benn bi mooy yàlla suñu ko ñaareel bi nag da koy jaarale ci sénégalais yi ak sénégalaises yi kon nag ñoom rek ñoo koy joxe ñoom lañ koy laaj ni ma bëgg jeexale mooy wax leen ne assemblée nationale nag fa des damay des à l'assemblée nationale pour défendre les intérêts exclusifs du peuple sénégalais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 loolu mooy la ca kon looloo doon message yi nga xam ne tey bëggoon naa koo joxe ngeen jàllale ko askan wi dégg ko sunu doxale nag toujours ci tey ak tekk ak respect dañu koy teg waaye ci ful lañu sëkk maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant takk loolu waay. tournons waaw nee nañ depuis 2024. mimi demee rek. mimi affaire bi yow la. mesdames messieurs. mimi affaire bi yow la. kenn du ko jiit. mimi. mesdames messieurs. kenn du ko jiit. mesdames messieurs les journalistes.